Eh, yegg si nga biir ndar mag ak rakk ñëpp far eh, dañuy teral gan dara du tàkku sànnu ndar la leen ak jàmm eh, man visite armée ah, ah, ah, la la lay def armée de mu yow daf nga rek mu de visite amel kenn de bu yàgg a mbokkal <laughs> dëgg la juróom damaa dem ba mu nekk loolu ñuy wax toxique dëgg la nekk dose si man ma nekk dose si man <laughs> mënul dem bàyyi ma mënul ma dem amul de ñaan amul kankola fii fii amul ay kankola amul ñu takk si bu kankura bi ah, ma fële kankura kankura. waaw ma ma joli joli. man man naa nekk sànni bi. waaw. nga waa bàyyi. bàyyi rek. ça amul moo amul saa ñu ngi teel a ñëw bàyyi ba kaay ba sa gi nga seen duul moo moo ah. moo moo ñu jotale woon kees. waaye fii day lekk kees gi. mu ngi lekk kees